jërë ngeen jëf mbokk internet yi nga xam ne yéen ñu baaxoo ànd ak ñun saa yu ne ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah, ñu ngi fii ci diwaan bu Taïba Cekkeen nekk 9 kilomètres ak dëkk bii di Mbàkke Bawol ni tey bokk 23 janvier 2022 ah, di bi nga xam ne ci la ñuy voté élection locale bu 2022 ah, fii nag ci Taïba Cekkeen gis nañu ne mbokk yi askan wi daal di ñuy génn massivement ngi daal di woote ki nga xam ne moom la ñu bëgg a tegaat ci li nga xam ne mooy bopp maire yi bu Taïba Cekkeen fii nag ci fàttali ba Bada Seck moo nekkoon maire bi moom it nekkaat candidat ci les élections daal di dagaanaat baatu askan wi ngir ñu daal di koy wootelaat daal koy falaat ci bopp mairie bu Taïba Cekkeen waaye nag terewul am na ay yoo xam ne ñoom it ñu bëgg mooy daal di dagaan baatu askan wi ngir ñu daal di leen di wooteel daal leen teg ci bopp mairie bu Taïba Cekkeen mbokk yi ndes tuut daal di ànd yéen ci yile élection daal leen di wan li nga xam ne moo fi am ci ay événement waaye nag daal di jël suñu micro daal di koy dénk ñi nga xam ne ñooy askan yi ñu daal di xool seen réaction ci yile élection léegi-léegi lay doon waaw woote naa ba pare ndax man ñu ma fi jiitu bëriwut ndax euh, huit heures sept heures et demi laa fi ñëw man ubbee ñu ma fi jiitu dix personnes lan lan lan toll. waaw woote naa si jàmm ak salaam ba nëgg ni maa ngi fi daal wax dëgg yàlla li fi gis daal jàmm rek laa fi gisagul. waaw ci suba ba rek nga nekk fii loolee dañu wane ne mën nga ñëw wax lenn ci déroulement élection yi fii ci Taïba euh, nag nga ko gisee déroulement bi baax na baaxul wala la nga ci gis. wax dëgg yàlla mënu mënu ma mënu see wax dara daal gisuma fi benn faute daal. wax dëgg yàlla benn faute gisuma fi lépp jaar na yoon daal waaw wax dëgg yàlla gisuma fi dara ñaan yàlla daal mu àgg ak jàmm six heures jot ñu tëj biir na yi ki jël ndam jël ndam li waaw loolu daal la ñaan yooyu sax ngay wax. Euh, lan ngay xaar yow en tant que Mayacine sekk nekk fii ci Taïba Cekkeen waaye nag bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon voté yi nga voté ba noppi jamono ji ngay xaar terewul am na koo faral koo xam ne jàpp nga ne moom nga bëgg mu daal di gañ yi. amul naa ko ba loolu moom gañe naa ko sa ba pare monsieur le maire ba Seck. Ah, loolu dafa am foo ko teg wala. dafa am fu ma ko teg ndax damaa ne woon si terrain bi di liggéey gis ñi ma doon liggéeyal ñëpp kenn ku ne ñëw foofu laa ko teg mhm. ah, waaw amu si sikk sàkkata ñii ñii ñii des nii si urne yi des sax mhm. suñ leen bàyyi woon ñu génne ko ñi ñu koor na carte yi gañe naa leen ba pare mhm. waaw. jeex na def naa li may def ba pare rawatina nag li si eh, beneen côté bii. waaw foofu moom amul lu ma fi am na ñu bëri ñoo xam ne ña nga maa ngi jokkoo ak mm-hmm. waaw wax dëgg Euh, ñoo ko déggandoo euh, sama caméraman dégg ngeen li nga xam ne noonu daal di koy waxee moom mi nga xam ne mooy Yacine Seck euh, daal di nekk nag allié de ci nga xam ne ñooy jàppale monsieur Bada Seck moom ne moo fi nekk maire waaye nag moom mi nga xam ne ab candidat la ci les élections yi daal wi xanaa kay ma daal keneen daal di koy jël xool ba xam it kan lay ak lan la ñu mën a wax ci les élections. ñu leen nuyu sant bu baax de nuyoo bi baax di leen gërëm liggéey bu rafet bi ngeen liggéey vraiment. tur sant bi man sëñ Mor Seck laa tudd dëkk dëkk Touba Ndao Daara Alim Xabir. Mor woote nga ba noppi wala. waaw maa ngi bëgg a woote nag da léegi laa ñëw dama doon faxas li di soñ Touba. bañ ñëw ma doog a ñëw nag. waaw loolu la ñoo doon ñoo doon dugal nit ñi ñuy ñëw. su dee ba nit ñi jeex nag ñun doog a ñëw ñu mujj a woote ñun. waaw dafa am koo àndal ci yile élection. waaw maa ngi la maire monsieur le maire ku bëgg lu moom nga àndal. waaw waaw maanaam dafa ku bëgg dëkk bi tey ba cekkeen te xanaa mooy liggéeykat bi xanaa moom li li tey moom waaw fekk tey rek tey rek noonu la moom nga àndal fa fa jëm feneen. Mm-hmm. loolu foofu laay waxee. d' bi nga fi ñëwee ci suba léegi. Mm. wala bi nga fi ñëwee euh, boobaag léegi wootee ko waaye nag nga gisee déroulement euh, li nga xam ne mooy élection yi comme que yéen mm. ñi nga xam ne yéen ay dogal nit ñi ñu daal di wote. moom suñu xale dal baax parce que ñi waxal ñi may waxal ñoom ñoo fa nekk ñoom naa ma vraiment seen xale nga dal li ñu gis biir moom wax na ne daal yaakaar bu bu nga jotee jox dana jublu jërë ngeen jëf mbokk yi comme leen ko waxee woon ñu jéem xool ba xam ne dañ am benn opposant boo xam ne danañ mën a waxtaan ak moom daanaka ñu bëri nag dégg nañ leen suñu micro waaye nangu ñoo wax yàlla dogal na nag am nañ benn opposant boo xam ne ah, mi ngi jàkkaarloog ñun ñu fas yéene koo laaj leen rek lu jëm ci wàllum élection yi laata loolu man ñu la ziar la tur beeg sant bi ñu ngi may woowee ñu gën maa xam ci Tafakounda di représente diisoo xarnu gi ci bureau Taïba Cekkeen mhm. nga xam ne moom moo bootu ci élection yi mu mel ne kon yaa ngi woon ci biir euh, ci fi nga xam ne fa lañ doon euh, defee élection yi fa lañ doon wootee di dugg di génn euh, ndax li nga xam ne mooy di baax na am baaxul wala loo ci gis yow. waaw alhamdulilah dans l'ensemble c'est bon parce que affaire yi moom jaar na si yoon. yar ak teggin non violence kenn indi fi benn bruit wax dëgg fi yàlla vote yi en tout cas man bureau bi ma féete woon muy bureau de Taïba Cekkeen wax dëgg fi yàlla amul benn erreur bu ci nekk ñii ñi ngi voté normal di génn normal si discipline. parce que daanaka Taïba lu lu avantage bi mu am mooy presque lu si bëri mbokk la. te mbokk moom fu ñu dajee daanaka kafre toog waxtaan. kon gis naa ne jàmm daal am na ci daal bu baax a baax a baax. yàgg nañoo dégg ñu ne élection yi mënees na koo sàcc ak yu ni mel ñàkk sécurité mën naa yu ni nag ñu gisee tey bi fi waaw sàcc nag moom maanaam dama naan parti au pouvoir yi moom maam ñu sàcc yomb na leen ndax seeni njuuñ njaaj moom euh, ngir ngir gañ a jaral nañ leen lu ne waaye nag man moom danaa taxaw fii ubbi samay bët nelaw sax duma sax lekk sax defuma ko ba ma xëy léegi ngir maanaam benn njuuñ njaaj ak benn. dara loo xam ne nii danañ ko fi jéem a def ndax buñ ko defee danañ dal sama kaw ndax man looloo ma fi teg. Mm, ci sa di ànd ak ki nga xam ne mooy Bada Seck moo fi nekkoon ci maire bi daal di dagaanaat baatu askan xam ne mooy Aliou yéen ngeen ànd ak moom daal di nekk ci diisoo xarnu bi ñu bëri daal di wax ne ba ngeen gañee élection yi ci sàcc ngeen ko amee ñu dégg la nga daal di défendre ci benn côté boo xam ne mooy waa côté ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñoo fi nekk waaye déggul ne sax nga défendre ñi nga xam ne ñooy waa diisoo xarnu bu mel ne kon li nit ñi wax naan bëgg ngeen ñu élection yi ci sàcc ngeen ko mi ngi déroul normal fi mu toll nii képp ku ne gañe wax na loo xam ne nii leeru ko ndax mbañ gàcce yi bureau yi euh, ubbeeguñ ko te ñi ñi ngi dem di voté ba léegi. te kon nit ku la wax ne la mën moo mooy gañe fi mu toll nii wax na loo xam ne ne tey ba ceekee nag li ma ciy dolli moom dañoo war a sant yàlla ndax man gis naa fi population bu ñëw voté si. ndax xam naa leer na ma ne buñ paree ba dépouillé ba pare euh, danañ fa am lim boo xam ne ni musuñ fee am. mosu fee ñëw voté si te loolu c' est grâce à Aliou Seck c' à félicité muy jeune boo xam ne nii moom mooy presque jeune bu njëkk a euh, porté wu def candidat campagne mitin mitin mitin yu am doole ngir ñëw euh, laaj tey ba kenn kon ñun euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi Aliou mu mel ne kii ñëw mooy Aliou sekk mooy ki nga xam ne moom lañ jàppale waaye euh, bi nga xam ne moom la ki àndal doon wax euh, daan na dafa daal di ñëw daal di dagg wax bi ne euh, bëggul kenn di wax ci ñi àndal bëggul kenn wax ci koo xam ne da koy jàppale loolee di wane ne ñoom pare guñ ngir wax kàddu ci li nga xam ne mooy élection yi mu mel ne saa yu ne liñ doon wax naan kuñ laaj ci ci opposant yi duñ nangoo wax Euh, benn opposant lañ amoon mi ngi doon wax waaye ki mu àndal muy Aliou Seck euh, nekk ki nga xam ne moo ko muy wax da ko daal di dagg euh, naa bokk ci opposant wala ci ñi nga xam ne ñooy waa benn bokk yaakaar kan nga wooteel ci élection yi ah élection yi xam nga ne benn bokk yaakaar la ñu naa teeru bon benn bokk yaakaar lañ mhm. muy maire monsieur Bara Seck nga xam ne waa Taïba gépp moom la ñu wooteel fii moom coolee bëri rek waaye su pënd wuree ku nekk xam ko la man lan moo tax tey ngeen taxawaat tem ngi daal di tegaat ki nga xam ne mooy Bada Seck ci bopp tey ba cekkeen ndax bilan ndax gone yaa ndaw yaa ngi ni taxaw koo ci laaj Bada Seck hôpital mu a la Bada école mu ne la Bada yoon mu ne la Bada ndox mu ne la Bada jàng mi mu ne la Bada kon loolu yaakaar naa mooy compétence bu mairie te yaakaar naa les quinze pour cent du compétence du mairie yaakaar naa moom def na ci lam ci war a def. Soxna Khady bu mel ne ñoo gis ne kontaan da ngay waxee jamono ah, kontaan rek gis ni askan wi amee génn massivement ñëw woote si loolu rek dafa sedd xol loo xam ne gëj na fay am ñu gis ko nag dañ ci sant yàlla. waaw loolu moom lan jàpp ne moo waral génn massivement bu nga xam ne yàgguñ ko nemmeeku en tout cas li am ba des mooy xam naa ne nit ñi moom génn nañ massivement xaw ma nag dañoo bëgg a wooteel ki fi ci xam ne mhm. mhm. ne wooteeguñ mhm. lan nga ci yaakaar yi nag euh, dana nekk ci élection boo xam ne enjeu bi dafa ku nekk mën naa gañ sa morom waaw waaye bu fekkante ne dëkk dañ fal ci ci ci maire boo xam dafa liggéey ci bilan liggéey lu baax kon mën nañoo fal ki fi nekkoon waaye nag sénégalais moo bëgg moski moskee loolu mën naa ne waaye da waaw mën naa mën naa gañ ndax wax dëgg yàlla képp ku waxal yàlla xam ne liggéey liggéey liggéey na tey ba waaw li ñu ñemee ko bu bokk ci yile élection ñu gis ne euh, opposition doon ci am na fii waaye ñu gis ne ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ak opposant yi mu mel ne amuñ benn problème ah non amuñu problème xam nga élection moo baaxoo bu ñëwee nit ñi di coow ku nekk di jël ay xeer di sànni sa mais loolu mooy enjeu élection daf ko baaxoo waaye bu demee ba campagne jeex campagne moo warloon loolu kenn ku nekk la sa morom moo tax nga naan ko cest à mais bu loolu passé nag dañuy ñëw woote massivement ci xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk ci benn maam mu ñu mu ñu bokk kon jàpp naa ne loolu campagne ko warloon waaye bu loolu jeexee dañuy ñëw bokk ndey ak bàyyi ànd woote ji ci xam ne suñu dëkk li li ñuy def pour dëkk bi la defuñ ko moo leen ñor mhm. waaw. Euh, doomi dëkk bi lañ euh, dëkk bi ñor leen liggéey dëkk bi moo leen ñor loolu nekk ay kàddoom moom Cheikhul Khadim euh, mu nekk fii ci Taïba Cekkeen ñëw fi ngi daal di teewee yile élection dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xam ne moom la yëkkati ci yile élection mbokk yi comme ni ñu ko waxee woon daal di liggéey bi xool ñeneen ñoo xam ne danañ mën a taataan seen i kàddu mu daal di jëm ci yile élection locale 2022 fii ci Taïba tur beeg sant bi. man maam Serigne Seck. maam Serigne Taïba Cekkeen. maam Serigne naka nga gisee déroulement euh, bu élection locale 2022 fii ci Taïba Cekkeen. non lii moom mosuma cee am xel yaar man fii moom ñun dañoo gëm suñ bopp ca gëm suñu maire xam ne suñu maire moom maam képp ku fi ñëw. maam gone gi fi mu mujj a judd sax boo ko laajee moom mu jox la joxañ la bilan monsieur le maire ba tax na ñun lii amuñ ci sax luñ ciy xel te vraiment fañ daan jaar fépp jaar nañ fa jaar nañ fa ci suñuy sëriñ dem nañ sëñ Muntaxa mu ñaanal ñu jaar sëñ Moustapha Abdou Khadir kon booba lañ rafet njort te ñun sëñ Muntaxa ca départ ba rek bi maire di dox ci commune bi ba mu fa demee rek ñaanal ko jaaral fi nga war a jaar rek saa yu am jotee da nga am bu soob yàlla kon ñun mosuñ cee am lenn luñ ciy sikki sàkk foofu nag lañ wàkkir lu nekk fa lañ nekk ba léegi mu mel ne loolu day lu tax nga am confiance loolu ci li nga xam ne mooy jëlee élection jàpp nga da nga koy gañ non élection yi gannaaw buñ santee yàlla julli ci yónent bi li tax ma am confiance ci ne dañ koy gañ mooy ñun suñu maire dafa nelawut suñu meer doonul maire boo xamante ni bii day jaar kayal dem mbàkki jënd sëri ca ñibbi këram suñu maire maanaam lépp loo xamante ni bii moom jàpp na ne bëgg-bëggu askan wi la ci lii itam mooy dimbali askan wi ca loola ci lay xëy ci lay gont ba tax na moo tax ñun ñu xam ne suñu maire moom vraiment nga ca ngalaama muñ lu di ko ñaanal yàlla suñu borom élection yi ñu dugg ñu ngi ci ñaan dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin lépp nag di ndam jërë ngeen jëf mbokk yi comme ni leen ko waxee woon ba tey ñi nga ànd ak yéen ci liggéey euh, gis ngeen jamono ji euh, li des ci waxtu yu bareetul ndax 18 heures la ñu war a daal di arrêté mel ne il fait 17h49 mu mel ne li des ci ay waxtu bareetul euh, laata loolu ñu wax leen ne euh, jamono ji nit ñi ñu ngi xaar euh, ci kanam tuuti nag dinañ mën a bureau yi ngi daal di compter xob yi xool kan moo fi ëppale ay votant fii ci diwaan bu Taïba Cekkeen ci bureau bi nga xam ne mooy bureau bu Taïba Cekkeen waaye jamono ji nit ñi nag boo leen xoolee am na ci ñoo xam ne mbégte ak a la ñuy xaaree waaye am na ci ñoo xam ne daanaka ñuy croiser les seen i bras nga xam ne ñoom seenu yaakaar dëgg-dëgg des na ma daal di doxantu tuuti xool ñi nga xam ne jamono ji yi euh, seen réaction lan la euh, ci ñi nga xam ne ay quelques minutes daanaka dix minutes neuf minutes moo ci des ñu daal di mën a jeexal li nga xam ne mooy élection yi asalaamaaleykum sama gars yi mel ne ñi taxaw nañ ñoom mu mel ne voté nañ ba noppi ñu ci bëri euh, daal di waxtaan ak ñoom xool fu seen gis-gis toll jamono ji sëñ Mor ñu lay ziar. baax a baax. mu mel ne jamono ji yaa ngi toog di xaar li nga xam ne mooy résultat yi fii ci Taïba Cekkeen. waaw a a le ba de Seck di nit ku yàlla baaxal mu jox ñu ko nag ñu am ci moom yaakaar bu baax waaw dégg ngeen ni mu ko waxee mu nekk jeune boo xam ne fii la dëkk ci Taïba Cekkeen euh, bokk ci ñi nga xam ne dañuy voter ki nga xam ne mooy Bada Seck dégg ngeen ni mu ko waxee moom it di xaar yi euh, ci euh, résultat bu positif daal di wuuteeg ñi nga xam ne daanaka gis nañ leen daanaka mën nañoo bañ a nekk sax ñoo xam ne mbégte ak contenté la ñuy wane waaye seeni i yaakaar gën naa des maa ngi lay ziar mbokk mi maa ngi lay delloo ziar bu wér bi ak sant bi Ameth Diouf lañ koy wax. Ameth nga dëkk wala fo dëkk. Touba laa bàyyee ko. da ngaa ñëw fii ngir woti wala. waaw damaa ñëwoon ngir foote. Euh, kan nga woteel ci élection yi mën nañ ko xam. Aliou Seck. Aliou Seck mu mel ne kon kii opposant la ci euh, ki nga xam ne mooy Aliou lay woteel euh, jamono ji lan ngay yaakaar comme résultat jamono ji. waaw di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam lu seddu guy rek. Mhm. incha ci ñaan nga toll waaye amagoo benn gis-gis boo xam ne positif na wala mu négatif ci a génn. waaw am nañ ci yaakaar bu baax a baax am nañ am nañ ci yaakaar bu baax. Mhm. incha allah yàlla nañu yàlla defal ndam daal. am nañ ci yaakaar la wax bokk ci ñi nga xam ne dañuy jàppale Alioune sekk mi nga xam ne mooy euh, représenté fii nga euh, ci Taïba Cekkeen ñi nga xam ne ñooy waa coalition Diso nekk ki nga xam ne mooy opposant bi mbokk bi ñu ngi lay ziar. waaw naa def papa ji tur beeg sant bi. man Ndiaga Seck laa tudd. Euh, si Ndiaga ñu gis la tey ba cekkeen fii ci bureau bi mu mel ne euh, da nga bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñëw ngir wote si kan nga wote ci l'élection. Hmm. ah mais loolu euh, wote bi kat dama gis dañuy def mbañ gàcce def secret ak sutura nest pas. mais te terewul tamit mën nga ñëw wax koo xam ne moom nga woteel yow. ah waaw man Bada Seck laa woteel. Bada Seck nga ah. lu tax nga woteel ko. am ci moom yaakaar rek ak comme moo fi nekkoon di liggéey booba léegi te li bu liggéey gis nañ ci njariñ gis nañ ci résultat daal taxawu dëkk bi ak defar dëkk bi te it euh, loolu rek lañuy ñuy loolu lañ bëgg daal te dañoo bëgg tamit toujours rek ci kaw ci kanam rek waaw moo tax nag yaakaar jooju nag lañ am ñu continuer rek di gën di dolli rek di dàbbaliwaat mu gën a jëmaat ci kanam jamono ji booy xool daanaka neuf minutes moo ci des huit euh, mu mel ni kon waxtu yi mi ngi jege ngir ñu xam euh, ñan ñoo remporté yi la élection fii ci Taïba kenn lan ngay xaar yow. nam daan demee lay demee rek amuñ ci dara luñ ciy tiit nag am nañ ci yaakaar tamit ne nam daan demee lay demee rek. kon victoire ngay xaar. waaw victoire bu gën a mag yi daan am sax. mën ñoo xam jamono ji lan ngay xaar comme résultat. waaw di sant yàlla ci niñ dajaloo ci Taïba gi tey. ñëpp ñoo fi ngir fonk seen dëkk. bëgg koo jëmee kanam tax ñëpp bokk bëgg-bëgg ñëw fi kon dañuy sant ñëpp di lu ni ñu watee nag ndax benn problème amu fi wax dëgg yàlla fair play lañ def teg ko ci yar teggin te wax dëgg yàlla ki nga xam ne mooy maire sortant bi génne woon na audio boobu li mu waxoon wax dëgg yàlla ci la xale yi dox muy ñu xam ne ñoo bokk dëkk bi bokk lu ñu bëgg mag ñi di ñu digal ñuy def kon nañu topp ci mag ñi rek kon niñ ko doxee ni daal ah nañ sant yàlla te ñaan rek ku yàlla may ndam ñu jàppale ko rek liggéeyaat. mu mel ne kon li des ci waxtu wi ngir ñu daal di wax ci gagné eh, fii ci Taïba Cekkeen baritul lan ngay xaar comme résultat positif wala négatif. non négatif moom yaakaaruma ko fi positif kay la ñuy xaar ndax niñ ko watee nit jàmm ñëpp ñibbi yaakaar naa suñ joxe résultat yi loolu day lépp day transparence rek. moom daal am nañ rafet njort bu a baax. jërë ngeen jëf mbokk yi comme ni leen ko waxee woon jamono ji ñu ngi euh, di xaar li nga xam ne mooy élection yi euh, résultat yi fan lay mujjee 18 euh, heures tegal na minutes ay simili yu bari lool 18 heures 19 minutes moo daal di jot jamono ji ñuy xaar li nga xam ne mooy résultat yi ñu ngi ci biir bureau yi daal daal dinañ koy tëj ñi nga xam ne ñooy président ñi nga xam ne ñoo fi nekk doon saytu li nga xam ne moo jëm ci wàllum vote yeeg yu ni ñoom ñu ngi ci biir ñi nga xam ne ñooy candidat yi nga xam ne ñoo doon xëccoo nga xam ne lépp day transparent euh, lépp day daal di xewee seen kanam ñoom it ñu ngi ci biir bureau yi daal di xaar li nga xam ne mooy résultat yi gis ngeen ci bureau bii la nekk kooku nga xam ne moo génn mooy euh, monsieur le maire moo génne noonu ñoom ñaar ñëpp daal di ñu euh, nga xam ne mooy résultat yi nag daal di fësagul ci ñi nga xam ne ñooy askan bi waaye génn nañ ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci bureau yi daal di bàyyi gars yi nga xam ne ñoo fa nekk génn na moom i nga xam ne mooy opposant bi mu mel ne it gis nañ ne kanam gi am na nu mu xaw a mel terewul tamit ñu ngi wéy di xaar li nga xam ne mooy résultat yi Eh, gis nañ ci nga xam ne moo fi nekkoon ci maire bi eh, moom it di Bada Seck gis nañ tamit génn na ci bureau bi am te ak kontaan lool xamuñ loolu nag lu ko waral waaye terewul mbir yi ñu ngi wéy di xaar li nga xam ne mooy résultat yi. mën na eh, doon li nga xam ne mooy arrangé waa benn Bokk Yaakaar ñi nga xam ne Bada sekk moo fi nekk nekkal fii ñi nga xam ne ñooy benn Bokk Yaakaar ci maire bi moom mi nga xam ne moo nekkoon maire Taïba Cekkeen doon dagaanaat baatu askan wi waaye nag jamono ji doon jaay léegi mu xaar li nga xam ne mooy mooy mooy mooy résultat yi. waaw élection yi moom def nañ ko ci jàmm def nañ ko ci jàmm te ci jàmm ci lay njëkk te ci lay mujj di ñaanal rek suñ meer gudd fan ak wér yaram ndax tay ba cekkeen ku fi ñëw ku ne xam ne monsieur le maire liggéey na bu kenn toog nag ba nga xam ne dañoo togg suñu añ bi ba suñu añ bi pare nga bëgg ñu cee sotti suuf non non loolu mënut a nekk. Euh, sëñ Omar ba tey ñu ngi fii ci ba ca kenn fi nga xam ne mooy bureau de vote yi euh, fi nga xam ne fi la nit ñi di wootee ngir daal di fal seen seen maire daal di koy teg ci bopp maire bi euh, jamono ji nag ba tey ñu ngi wéy xaar li nga xam ne mooy résultat yi ba tey génnagul waaye nit ñi ñu ngi taxaw nii di xaar li nga xam ne mooy résultat yi ñoom it ma doxantu ba ci sama mbokki soxna yi xool ñoom ban gis-gis lañ am ci li nga xam ne mooy mooy mooy élection yi lañ li nga xam ne euh, mooy résultat yi ci xaar gi ñu koy xaar euh, ma di xool kenn euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar soxna si ñu ngi lay nuyu di leen ziar. delloo ziar bu baax sant bi. Mame Diarra Seck. Mame Diarra ñu gis ne ndaw nga ci ndaw yi Taïba Cekkeen ñu gis ne yaa ngi fii ci biir école bi nga xam ne fi la ñuy wootee ngi daal di fal suñu maire jamono ji ne yéen a ngi taxaw di xaar li nga xam ne mooy résultat yi lan ngay xaar. Ah, ndam rek la ñuy xaar pour monsieur le maire Bada Seck pour sa réélection incha allah. Mm-hmm. waaw ndam ngay xaar est-ce que jàpp nga ne ndam loolu dana ñëw. waaw a ah, bien sûr Bada mooy borom Taïba Bada moom fu ah, ku muy xëccoo rek xamal ne moom moom Taïba mm-hmm. waaw. Bada moom moom Taïba ku muy ñu xam ne moom moom Taïba ah, booy wax loolu lan moo nekk ci suufu wax ji. dafa di Bada ay maam dañoo dem légué ko euh, les dossiers de Taïba les documents Taïba. mu téye ko nii téye ko téyin bu rafet ay baayam jox ko ko mu téye ko téyin bu rafet amul si benn faay lu tay Taïba amul woon rek ba fexe na ba mu ñëw fi Taïba ba bi fi ñëw ay ay ay ñax doong la fi fekk ba def fi ay tabax ba indi fi yoon ba indi fi hôpital courant bi jolli ndox mi jolli dara manqué wul ñu dëkk bi amuñu benn ambulance sax ñaari ambulance lañ am kon kon ce que veut dire que moom moom Taïba. Serigne Omar ba tey ñu ngi xaar il fait presque 19 heures ba tey résultats yi génnagul waaye terewul ba tey nit ñi ñu ngi ñëw massivement di xaar li nga xam ne mooy résultats yi ba tey nag nit ñi. Eh, ñi nga xam ne ñooy kilifa yi war a nekk ci biir ñi daal di compter li nga xam ne mooy xob yi ba tey ñi ngi ñi ngi compter waaye ba tey eh, résultat yi génnagul officiellement waaye ñi ngi xaar li woon nag tey ba cekkeen eh, bureau yu ci bëri résultat yi génn waaye foofa nag ñi nga xam ne ñuy waa benn Bokk Yaakaar ñoo ko gagné ki nga xam ne mooy Bada Seck moo ko moo ko gagné déjà fii nag ci tey ba cekkeen résultat yi génnagul mun a gaaw a génn nag ndax ñi nga xam ne ñëw ñëw ñëw woote si massivement dañoo génn te dañoo takk lool kon lu mu lu mu am moo am ci 3 janvier 2022 bi ñu ngi di xaar nag euh, laata loolu ñu wéyal suñu micro euh, trottoir euh, soxna yi ñu ngi leen di ñu ngi leen ñu ngi leen di ziar. soxna yàlla yàlla nangu si yaar. mu mel ne yéen a ngi xaar. waaw ñoo ngi xaar ba tey. lan ngay xaar. ah xanaa résultat yi la ñuy xaar. lan nga yaakaar yow tey. ah ndam rek. ndam rek. ku gagné. ah monsieur le maire Alioune Badara Seck. Aïcha ba tey da ngeen ko waxee nee na Alioune Badara Seck moo gagné dinaa euh, dina dinaa wër ngir ñu xam ne euh, nekkul ne euh, ñun ñi nga xam ne ñooy présenté ñoo bëgg ñu daal di wane ne Badara Seck moo fi nekk waaye ñu xam ne mbooloo ñu fi nekk ñoo daal di jël seen i kàddu daal koy jox ki nga xam ne mooy Badara Seck soxna si ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi nangu mu mel ne ñaa ngi xaar résultat. waaw maa ngi koy xaar. positif wala négatif. ah macha war a xaar rek euh, ngir ki nga xam ne mooy gagné euh, langa nga ciy xaar gagné ci ki nga xam ne mooy Bada seek wala ñàkk gañ non Bada day gagné lax day gagné te fii moom macha allah dafay liggéey moo ko moom tey ba bëgg koo kenn da koo liggéey ku ku lu ne faa nga kenn du ko jeex. waaw. Euh, soxna si ñu ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar. mel xaar. waaw moom laay xaar nii de. xaar jamono ji. xanaa am yaakaar rek bu baax rek ak rafet njort te xam ne moom suñ papa ji ndam li da koy jël ndax moo ko moom. waaw moom. ok. ba tey ba àll bi ba mu lëndëmee moo xus jàll te kenn gungewu ko def lu ñëpp di naaw kon nag ndam ni moom rek moo ko moom te moo ko yeyoo yàlla na ko jël si bàkk Seexul Xadim mu sedd guyu te mu jikko te mu njiglaayam si bàkk Sëñ Fallu euh, ba tey ñu ngi wéy di xaar dégg ngeen réaction yi fi am ci mbokki soxna yi euh, ñu wéyal rek daal di xoolaat li nga xam ne mooy réaction ñi nga xam ne ñooy askan wi euh, soxna si ñu ngi lay ziar. delloo tur soxna Faati Mbacke. mu mel ni yaa ngi fi nga xam ne mooy euh, bureau bi ci Taïba Cekkeen ngir xaar nga xam ne mooy résultat yi lan a a nga jàpp ne mooy gagné. Bada daal di jël li nga xam ne mooy résultat yi daal di koy jagleel euh, positivement ki nga xam ne mooy monsieur le maire Bada euh, ba tey ñu mooy liggéey bi ah euh, ñu ngi lay ziar Badiane. waaw ñu ngi lay delloo ziar di wax nax nu ko ka di ñaan jàmm rek di ñaan wér di ñaan yokkute tey du am yaakaar nañ ko amee woon tiituñ afale wuñ mosuñoo afale ci dara ndax Bara Seck dafa gëm yàlla gëm sëriñam yaayam xëyal ko mu gont kon yaakaar ne ba tey ndam li ca koo ca kanam ndax bara moom ku ne xam na ne nuñ koy waxee yàpp la nam la ko daj rek da ngay def ne yow rek la te bara ni mel noor la mel nawet siment la benn yoon lay to dañ daan wote dem ñibbi fañ dëkk waaye tey dañoo xaar bituwaar bi lañ doon xaar egsi na ba pare ñu feetu ko doog a dem ñibbi. lan nga jàpp ne moo waral euh, nit ñi tey massivement daal di génn euh, takku lool ngir daal di xaar résultat bi fi am lan nga jàpp ne moo ko waral. xanaa dañ naan li tax ma def loolu mooy dañ ne bëri xeex dañ ne kaata sax ci la bokk te bu dee dañ naa song da taxaw bu dóor jotee nga dóor. loolu rek moom ma tax a takku. xam ne door rek te daal di ñibbi. ba da moom Sambaay baayam te fii la woon te fii la ko ñafee fii la ko amee kon moom bu ko amee tey jii bu ko amaatee tey jii te da koy am sax incha allah du ko bett ndi baayam nii la mbekke woon ba keroog mu génn. ni leen ko waxee rek kàddu yi benn la moo xam muy góor jigéen mag ak ndaw li ñu xaar mooy résultat yu positif ci ki nga xam ne mooy Bada Seck soxna si ñu ngi lay ziar. waaw Baye Samba maa ngi lay delloo ziar bi. di la jox seen yéeguwaay bu baax a baax di sant nag di gërëm di kontaan nag si suñu monsieur le maire Bada Seck ndax lii lépp moo ko fi liggéey moom mënoon naa bañ a toog mënoon naa toog rek bañ a campagne te xam ne ndam li ci lalam booba la koy fekk euh, lim fi liggéey rek la fi fekk te loolu la ko waa tey ba fay. ba tey ba tey ba tey kàddu gi benn la euh, opposition ba tey dégguñ kenn koo xam ne wax na lu lu lu faveur ci ñoom. Euh, donc nag li wane ne kon ñi fi taxaw di xaar ñëpp résultat bu positif la ñuy xaar ci ki nga xam ne mooy Bada Seck ñu wéy di xaar li nga xam ne mooy liggéey bi résultat yi génnagut bureau bi mi ngi tëju ba léegi mbokk yi ñu ngi ci biti di xaar euh, nañu wéy xaar suñu Omar euh, ba ci kanam incha allah rabbi xëy na résultat yi daal di génn daal di positif ci ki nga xam ne mooy monsieur le maire Bada Seck bon ñoo ngi fii tey ngir joxe résultat global yi nga xamante ne jële woon nañ ko ci différent école yi nga xamante ne amoon na ci école Gowaan Séeréer Gowaan Pël Ndende ak Taynaabe ak commune ak école bu tey ba Cekkeen ci lépp lépp am nañ 919 yoo xamante ne c'est valablement ci lépp lépp am nañ 919 yoo xamante ne ñoom ñoo voté c'est valablement exprimé sur les 919 Alioune Badara Seck am na 721 voix Aliou Seck am 123 voix Abdoulaye Ngom Abdoulaye Ngom am 700 euh, am 67 voix sur le pourcentage qu'on a fait Alioune Bada est largement en tête avec 79,23 pour cent suivi de Aliou Seck avec 13,51 pour cent et de Abdoulaye Ngom de Gëm Sa Bopp avec 7,36 pour cent donc loolu la amoon ci résultats yi nga xamante ne moom nañ am ci différents bureaux de vote yi nekk ci au niveau de la commune de Taïba Cekkeen ok gis ngeen jamono ji euh, résultat yi daal dina génn fi nga xam ne mooy teebu cekkeen waaye nag lépp génnagul benn bureau rek euh, moo daal di ruusagun waaye nag liñ ci gis mooy euh, Bada sekk mi nga xam ne moo fi nekkoon moo daal di gagné ci benn bureau bi rek lu toll ci 209 contre ki nga xam ne mooy opposant bi di Aliou sekk moom mi nga xam ne am na fi 47 donc 209 47 ci benn bureau des na ci beneen bureau boo xam ne résultat yi génnagul waaye ñu ngi wéy di xaar. Euh, mbokk yi nag daaj nañu génn jamono ji ci école bi euh, ndax euh, ñu bëri jàpp nañ ñu jaratu ñuy xaar li nga xam ne mooy toppaat ci beneen bureau ndax 209 47 dafa dafa doy sëkk donc des na beneen bureau résultat yi nag génnagul finalement officiellement ci ñaari bureau yëpp waaye benn bureau bi daal li ñu ci mën a jàpp mooy 209 contre 47. man daal di jege tuuti sama caméraman balaa son bi di dagg waaye li ñu si mën a nemmeeku ba daal ngoog di dem. Eh, Badang Ngok ànd ak gone Teba Cekkeen eh, gannaaw Badang Ngok ànd ak ñi nga xam ni askanu Teba Cekkeen daal di wane seen mbégte daal di wane seen kontante ñu ko Bada Bada Bada déglu leen. fan lañ jëm ñu ànd ak moom bu xool fan lañ jëm exactement waaye mbooloo mi ñu ngi ñu ngi wéy di way daan Bada Bada. ñu daal di koy sagal ci li nga xam ne mooy bi la victoire. ba ñu génnee ba gis la rek suñu xol yëpp daa ci bég te sa xol bii da daa rafet. ku defal kooku moo faram. ku la xam xam na yaa di mbër ku la sóorit de sóoru mbër ku la songin nga jàpp ku la bañ kooka moo toro fa mu daan jaar ba daan di mbër moo tax ñëpp a jox la jër dafa tey teg ca am na yar ku ko bañ yaa ko yaa ko bon soxor ndox meeg yoon wi yëpp a ñëw hôpital ak école bi sax de moo ngi ñëw ku la bañ yaa bañ soxor yaay bàjjen ni yaay bi mburum lem fuñ ko jëmbe waane koy naan na sol daal sa soxna Ndiaye mu yem ci yow mu dem ca tool ya sax gone dooñ mag ñi di téere bi wax fi lu du dañ gone Amadou Ndioba ak Mor Ndioba gone Samba Ñama ak Fatou Xulemi sa yaay nii rek lay mën a demee nii rek asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di sant population commune Taïba Cekkeen góor jigéen ñoom ñëpp kenn amul seen pay tey dañoo takku taxaw wane seen bopp lu fi mës a am tey jii am na kon nag ma di leen ci gërëm di leen sant te di leen wax ne nag sas ngeen ma sasu rëy yàlla ma yàlla kàttanal ba ma mën koo bay ànd ko nag ak sama ñi nga xam te ne bii dëpp ba ma jógee ba léegi jiital ci Mor ak bépp conseil boo xam ne bii ànd naa man liggéey ci commune ba Cekkeen maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant magi dëkk bi nag ki ma waroon a jiital ci sant gi mooy El Hadj Mayacine Seck mi nga xam ne mooy xalifa général Taïba Cekkeen waxtu wu nekk mi ngi may woo di ma ñaax di ma digal. may wax ñi nga xam digal liñ ma jox na ma jox ko ñi ma àndal ñoom itam ñu dégg ko léeg seen xol tàng lool ñu mer lool mais dañuy giif waaye nag lu woo doon jaay tey lamb na ma leen di xamal ne xoxotal yu ne def nañ ñu ko pakk yu ne sànni nañ ñu ko tiital bu ne def nañ ñu ko wax nañ nee nañ digg nañ ñu police dig nañ ñu gendarmerie dig nañu procureur dig nañu commandant waaye loolu lépp te jii jeex na tey képp koo xamante ne bii yorete nga saw làmmiñ taxaw di ma wax dara bu keroogee maa yow ñoo koy digaale lu leer laa leen jox may ma tuuti rek boromog njaboot la tee naa sama njaboot waxuma leen ñu wax leen leen def lu neex na leen waaye nag bu politique jeexee dëgg des nañ fexe ba nag li nu bokk xam ko kon nag ma leen di wax ne yéen ñi nga xam te ni bii yéen a sës ci man leen di gën sant bu baax tàmbaleeg samay soxna te jiital ci naar Jóob mi nga xam ne mooy magum kër te ba ba ba mu sampoo ba nëga ni ko wut saa boo xamante ni bii élection yi commencé ba léegi lekkut naanut nelawut lekkut naanut nelawut ay doomam sax dañ koy tooñe ne ko xam naa bala ngaa mën a téye bala ngaa mën a lekk bala nga mën nelaw sama papa daa gañe élection yi ba noppi waaye nag moom mu ànd ak xelam mu dal ak xolom bu sedd ànd na ku ñëw mu jaxasoo yow léeg-léeg muy dox dox woo xam dox boo xam ne bii yëguma ko tiinuma ko te lépp lu rafet rek moo moom la ci bëgg kon nag yéen ñi nga xam ne Mor ñi ni nga xam ne yéen laa bokkal commune ba Cekkeen maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di xam ne li ngeen ma sas sas bi rëy na waaye danaa summiku taxaw bu ma ko mënul sax dinaa wut ñu ma àndal bay sas waaw waaye ndax xam nga yaa ñu doy yaa ñu doy kum doy dara du la doy kenn du la jox lépp nga jël lépp lu ngeen ma jox rek delloo naa leen ko ndax ñun lañuy lenn kenn mënuñoo xar ñaar. jërë mbokk yi gannaaw ba ñu bàyyi ko. Euh, foofee euh, ca euh, fa nga xam ne fa la monsieur le maire doon amali ab discours am gannaaw ba nga xam ne daal na gagné li nga xam ne mooy élection locale 2022 bu Taïba Cekkeen ci bureau 1 bi mu daal di fay gagné ci 209 49 bureau daal di fay gagné ci écart bu ngand ngand ñëpp nag daal di àndandoo daal di koy wayal daal di koy bégal daal di koy yëkkati waat ca kaw wane ko daal di koy wan ne yow yaay sunu maire yow la teg ci dëkk bu Taïba Cekkeen moom mi nga xam ne mooy monsieur Bada Seck laataa waxtaan ak kenn koo xam ne euh, suñu doom la di doomu Taïba ceken euh, mu daal di yëkkati ay kaddu laataa ñuy euh, tëj li nga xam ne mooy suñu événement bi incha allah rabbi ñu ngi leen nuyu jëlee ziar. maa ngi leen di ziar bu baax. di leen jox seen wàccuwaay man la Abdou Khadir Seck nekkoon respo nekk responsable at réew mi di jàppale Baye Bara fii ci commune Taïba ceken ci benn bokk yaakaar. Ah, jamono ji ñu gis ne élection yi jeex na euh, vote nañ ba noppi résultat yi génn na Bada sekk daal dina euh, gagné ci écart bu nganda nganda donte amoon na euh, benn opposant wala ñaar sax yoo xam ne ñu ngi fi waaye ki ci gën a fës di Alioune Seck koo xam ne daanaka gagné nañ ko ci deux cent neuf quarante neuf ci cent dix neuf quarante quatre loolu di wàññi ne dim ko dafa bëri gannaaw loolu lépp nag lan nga mën a lan nga ñu mën a wax ci li nga xam ne mooy élection yi lan nga ñu mën a wax ci li nga xam ne mooy vote yi lan nga ñu mën a wax ci situation. politique bu tey bu cekkeen ci moo xam muy Bada Seck wala muy Alioune Seck question bu global rek daal boole lépp. waaw di wax euh, monsieur le maire Bada Seck di ko wax filistation parce que tamit écart bii mu gagné nii boo ko xoolee xam ne da koo liggéey di wax euh, parti opposition yi xam ne ñoo ko doon opposé wu di leen wax di croiser mais tamit di leen xamal ne nañ jàngiwaat politique quoi parce que tamit dañoo xaw a yàkkamti parce que mbir boo ko yàkkamtee rek daf lay jural musiba donc. Euh, boo xoolee écart bi am ci élection yi par rapport ak ak li amoon ci élection yi ñu passé muy 2019 waaw te wax dëgg yàlla man dama jàppoon rek euh, nagu sarax la daal man bi ma gisee liste bi dama ne lii nagu sarax parce que tamit boo xoolee li nga xam ne monsieur moom la monsieur le maire réalisé fii ci euh, commune Taïba Cekkeen wax dëgg yàlla koo xam ne bi mu jot ci commune bi dañ doon taal ay lampe pétrole di taal ay sondeel tey wax dëgg yàlla yàlla dogal mu jot ci commune bi mu fexe ba ñu am courant am yoon am ndox am poste de santé am lu bare bëri yoo xam ne dëkk yi nga xam ne ñoom ak ba Cekkeen amuñu ko kooku tey boo jógee di ko opposé wu te yow mënoo ñoo indil benn programme bu palpable bu ñu mën a teg suñu loxo dana ñu jaaxal daal wax dëgg yàlla loolu moo tax tey ñun ñëpp ñu maase derrière Bada Seck ñu waral ko mu gagné. kon nga bëgg wax ne deful loo xam ne war naa tax mu samp ndëndëm fii Taïba Cekkeen. non no no non non amul programme. man biñ ma wooyee na ma dañoo bëggoon nga ñëw nga jàppale aussi nga wax ñu yan stratégie li a ba gagné dama ne man mënumaa jàppale ko muy programme parce que tamit boo dem ci élection da joxe programme ki nga mooy monsieur di Bada Seck wax dëgg yàlla euh, dafa wax li dafa wane li nga xam ne moom la ga moom moom la moom la ko waa tey ba fale woon da ko wane kon kooku jàppale kooku moo gën a jàpp moo gën amul programme booy jàppale nit da lay jox programme bu palpable mais mënoo ne da ngay ñëw di laaj ab maire di indi loo xam après day tiital waa dëkk bi parce que man gis naa fi ñoo xam ne tey bi leen indee ci dëkk bi ay bailleur lañ dëkk bi commencé indi ay bailleur yoo xam ne dafa ñëw dañoo am lu ñu bëgg wax nañ ne suuf la ñoo xam ba xam wóor na wala wóorul wala am na mais en tout cas loolu day tiital waa dëkk bi ab dëkk nag da nga koy jox koo xam ne daf lay daf lay wóor ne lii nga koy jox xam na ko mbir boo koy jox nit day doon day doon ko mu xam ko mais dañu doon laaj lu ñu xamut di laaj loo xam ne ñu ko politique aussi ma koy corriger ci benn affaire Aliou sama frère la sama xarit la mais tamit na xam ne politique dafa ànd ak discipline ànd ak yar ànd ak teggin même bu dul moom na xoolaat boppam bu baax xoolaat entourage am te bu mu nangu kenn di ko def nagu sarax ëllëg ak ku mu mën a doon même buy président daal bu mu mën a doon bu la bëggee jox liste boo xam ne liste boo xam ne nagu sarax la bul ko jël man wax naa ko maintes fois wax naa ko ay nit ne leen liste bii nagu sarax ko jël da ngay imposé nañ ma ko wax nañ ma sax demal nga jàppale ko mais ba ma toogee ba def samay analyse wax dëgg yàlla dama ne du ma ci dugg parce que bu ma ci duggee tamit na ko sarax laay doon te résultat baa ngi nii moom gis na ko la preuve waaw te yow élection 2019 yi ñu passé fi la fekk élection locale yi fi la fekk boo xoolee ñaari écart nga xam ne bokkuñu sax wax dëgg yàlla nag kon am na lu mu manqué na dem wuti waat ko na ñëw waxtaan nag waa dëkk bi na ñëw xo seet waa dëkk bi waxtaan ak ñoom jege leen politique da jege waa dëkk bi xam seen bëgg-bëgg xam li xam ne moom lañ soxla li xam ne dëkk bi manqué na nga ñëw waxtaan ci ñoom ba xam ko nga dem wuti ko wala nga indi leen programme mais boo ñëw di campagne amoo programme yor say rek def ay caravane wax di yàlla confirme ko moom confirme ko doomu aadama yu bëri bëri xam na ne moom li ko xañ wóoluwaa nañ ko joxaat ko aw sas la moom wax na ko léegi di ko ñaanal yàlla yan bi woyof tooy ba mu réussir ko total wax dëgg yàlla loolu lañ koy ñaanal di ñaanal mboolem ku ci jàpp ba mu gañi di ñaanal it waa dëkk bi di ñaanal kilifa diine yëpp di ña di leen sant leen gërëm di gërëm mboolem ko ci jàpp di ñaan suñu borom defal ñu jàmm ma dama ne woon même bu APR perte fépp te gañe commune Taïba Cekkeen doy na mais nag bu ci doolee bu Mbacké mu gën maa neex muy euh, le DC Gallo Ba maa suñu borom defal ko ndam lu sedd guy di ko ñaanal mboolem jullit ci barke Seexul Xadim jërë ngeen jëf sant ko gërëm ko wax jërëjëf ci képp koo xam ne yaa ngi woon fii ci Taïba Cekkeen euh, sant bu baax a baax daal di encouragé euh, ki nga xam ne mooy Alioune Seck mi nga xam ne moo nekkoon opposant bi daal di ñàkk élection yi waaye daal di félicité a baax ne mooy monsieur Bada Seck euh, nekk monsieur le maire de Taïba Cekkeen te askan wi daal di koy jëlaat teg ci li nga xam ne mooy bopp Taïba Cekkeen mbokk yi jërë ngeen jëf fii ñu doon ànd ak ñun li nga xam ne mooy site bii di 28 pro ñu leen di jaajëfal leen wax ba beneen incha allah rabbi ci présentation bi seen mbokkum Baye Samba Seck ngeen ci àndal loolu jox leen di daje wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu